tey nag ñu ngi ci barab bu tedd bii di jumaay tuuba waaye itam di ci bis bu màgg bii di bisu gàmmu di bis bi ñuy fàttaliku gën ak àddina ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di guddi gu màgg nag goo xam ne eh, daayira Muxaddamatul Xidma da cee am taxawaay bu am solo taxawaay boobu nag xam nga ne daayira Muxaddamatul Xidma moo yore lépp lu aju ci jumaay Touba ak li ko wër waaye nag yàgg naa dundal gàmm waaye daawu ko defee fii ci jumaay tuuba ci ji xilaaf ak Cheikh Sidil Muxtaar nag ci la jox ndigal daayira Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaaxiin ngir ñu àndandoo di taxawu gàmm gi fii ci jumaay Touba. Euh, booba ba léegi nag ñu ngi koy def di ko dundal nag di ko dundale ni ko Cheikhul Xadim daan defee fële ci njaareem ci defin wu sell ci jiital alxuraanul karim ji fukki kaamil ak ñaar bu ñu noppee ñetti kuréel yi ni ñu ko baaxoo defee kuréelu Mawaahibun Naafi' fukki bayit ak ñaar kuréelu Jasbul Xuluub fukki bayit ak ñaar ak kuréelu mu xaddamatul am daa fukki bayit ak ñaar ak benn buntu ci barzan jiw bi nga xam ne day jàngale jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko lu jiitu ak gën ak àddinaam ba ni mu fi jógee programme bi nga xamante ni moom lañ leen fas yéene amal tey nag ngeen koy topp ci MK TV ak mboolem chaîne yi muy lëkkalool rawatina Lamp Fall TV bi nga xam ne mooy ànd ak moom ci liggéey bi en directeur programme bi niñ ko tëralee woon mooy ci fukki waxtu bu jotee muy deux heures ci la ñuy tàmbali nag programme bi gis ngeen ko Serigne Cheikh Gueye May jàng na fi bu ñu noppee am na ñaari kuréel yoo xamante ni jàng nañ fi ci kuréel yi Muxaddamatul Xidma yi bu ñu noppee ba fukki waxtu tegal fanweeri minute ci la Serigne Bolle Mbaye ñëw jàng nag bu fukki waxtu ak benn muy 23 heures. ci la ñu tàmbali nag waxtaan wi nga xam ne digoon nañ leen dañ ko def waxtaan wi mooy doog a jeex noonu te sëriñ Mbacke Abdourahmane doon ko def doon ko def ci tam bu am solo muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu daan dunde ci biir këram ak njabootam loolu nag ku ko wax xam ne tem bu am solo la ndax bari na ay jafe yu am ci biir kër yi ci biir njaboot gi ñàkk dellu ci njàngale bi yonent bi moo ko waral ba tax na gis ngeen ni ko sëriñ Mbacke Abdourahmane traité sëriñ Mountakha Diatara doon ko diim mu ngi noonu di doog a jeex léegi ñu war a dugg nag ci beneen xaaj bi ci des beneen xaaj bi ci des nag mooy nag lu jëm ci wàllu njàng mi nag muy kuréel yi nga xamante ni ñoo war a jàng ñetti kuréel yi waaj nañ ba jekk ñi ngi noonu toog ñetti kuréel yëpp kuréelu mawaahibu naafix bi kuréelu muxaddamaatul am daax bi ak kuréelu jësbul xulóob bi ak bunt bi nga xam ne moom lañu war a jàng ci barzan bunt boobu nag Serigne Ahmed Badawi moom Cheikh Mamadou Fadal ci ñi ko war a jàng bokk ak Serigne Afiya Bousso ñoo koy taxawee ak Serigne Abibulaay Getara ñoom ñooy taxawee buntu barzan boobu saa yi ñu jàngee fukki bayit ak ñaar ci ñetti xasida yooyu ma wax danañ jàng buntu barsan bi noonu lañ ko fas yéene fanaane bu bët set ànd ak nag nag ñuy tasaare nag jukki yi ci diiwaanu quraan ya diiwaan xasaayit xadimiya yi ak alquran ji nag fas yéene ànd ak moom nag xatta matlaayil fajri di xaar nag niñ ko baaxoo defee année yi at yi weesu yëpp Cheikh Mamadul Muntaxa dana ñëw nag ànd ak mbooloo mi ñaanal leen tëj gàmm gi ñu julli fajar nag doog a ñaanalante incha allahu taala waaye bu leen fàtte MKTV dana dem ak yéen ci esplanade du grande mosquée de Touba ci penku bi ci biir euh, fi gàmm gi nekk waaye tam fi nga xam ne fi la ñu ber soxna yi ndax ren am na benn innovation bu bees bu ci am mooy baas bi nga xam ne moo nekk ci buntu kër Cheikh Mamadou Fadal ca daara is bu tarax yoroon ko dénk ko mu xaddamatul ma jox jébbal leen ko ngir ñu boole ko ci gàmb gi fa la ñu def soxna yi loolu dara du dara du leen ci ump incha allahu taala di ngeen ànd ak MKTV ci programme bi fuñ ci toll rek danañ ci si ak yéen kon léegi léegi nii ci kanam tuuti incha allah ñu dugg nag ci war njàng mi muy ñetti kuréel yooyu ak buntu barsen bi jërë ngeen jëf.